Dakar notre plateforme d'information. Euh, euh, ñu leen di fàttali rek doomam euh, mooy ngénte ni ki tey ñu fekk fi nag ki nga xam ne moom moo di sumbuloo di genn wàllub Badiane Bosse Soumboulou maa ngi lay. maa ngi lay fay bu baax di sant yàlla di nuyu maas borom Dakar <laughs> nit ku baax la. voilà tey ñu fekk la ci xew bi sa diggante ak Badiane boose nekkatul lu ñuy laam-laame mais lu waral sumbulu toog fii ba heure bi loolu mooy question bi ma la bëgg a njëkk des na dama koy gunge ba fajar incha allah waaw lu ñu dund la man ak moom loo xam ne kenn mënu ko nettali. <laughs> ban complice nga am sa diggante ak bàjjan Bosse parce que gis nañu ni euh, fu ñu la seen dañuy seen bàjjan Bosse. waaw moom moom complicité bi ñëpp gis nañ ko jaratul ñu koy expliquer xanaa ñaan yàlla rek mu sax loolu la ñaan yàlla <laughs> waaw cat bañ ci dugg daal ñaan yàlla mu sax ba suñu doom yi dem di ànd. Euh, gis nañu euh, teraanga ba am solo bi nga xam ne indi nga ko démb. doo ci dikkaat mais lan moo waral teraanga gi lan moo ko ji. ah loolu moom du ma ci ñëwaat bu <laughs> ko ji moom xam na man xam naa waaw. mais fan nga jaar parce que gis nañu ne da nga sañse. ah da nga sañse macha allah fan nga jaar. bilaay bilaay ndax nga ma. kan moo jaar ci make-up. <laughs> Aïda Aïda maar. <laughs> nee nañu gars yi nee nañ lan mooy problème bi parce que Soumboulou kanam gi niñ ko gisee gëj nañoo gis mu bellee. ah est-ce que du tey gën a xool rek. naa tey nga ma gën a xool moo tax. mooy secret su ah, ah, aw ma secret waaw dañuy sant yàlla rek di góorgóorlu. Euh, Soumboulou euh, fan si namm nañ la yi gëj nañ la gis ci yi euh, sumbulu lan mooy projet yi ak weeru koor bii di ñëw. waaw nañ ma ñaanal rek nañ ñaanal rek <laughs> baax na. coow li bari na kenn déggul Soumboulou wax li xew sa diggante ak Adji Mass kenn déggul Soumboulou wax euh, Soumboulou euh, ci lan la taxaw ba tey jii euh, déggaguñu sa ay kàddu ci coow li nga xam ne moom moo fi jot am. maa ngi sant yàlla <laughs> bàyyi ma sant yàlla rek. <laughs> mais mais coow divorce bi lan nga ciy wax gars yi. sama garmi bi sama paris bi ki nga xam ni ñëpp a ma bàyyeeg moom gi ña ñuy toog ñëpp fi gis daf may bokkaal li ma dañ laa bëgg waaye bàyyi na lak sumbul ñii toog ñëpp xam nga lu baax see ci man sumbul yaay faris sumbul yaa ma teg place sumbul yaa xam may kan sumbul wutoob lawbe wutoob séeréer wutoob njaago wutoob man ni ka man rek maa saf bu ma teeyoo maa la saf su ma fa nekkul ànd ak kenn buri du ma bàyyi ma fen suy dem programme bu ma fa newul danaan buri demal yaa njóogu waaye kenn du dem benn géeru dem yow kenn du yow yaa ngi jaaral sa baali dama ni ay donte donte jëlabu ay donte nga nooy ba mu nooy nepp na ngay dem nga nooyal fii ma seede leen ko lu ne ñaar la ko def boisson yi mu def diis ndox ya mu def diis yëkkati junni bari teg ci waa ndaw Sane ne kii yéen xam ngeen ni sax ay da ngay tëdd ba yegg kër nga ne ma subul mënu laa mënu mënutoo koo fay ñi ma àndal ñëpp nag du ay junni du ay or du ay milliards te géer ñi ma àndal ñëpp dañu ma bëgg waaye yow su ma es ku ma esati mu ne ma dindil kon kii nga gën a bëgg kamal loolu lay may su ma seetee ni groupe jàmm boose ngi mu ne ah groupe jàmm boose yow di nit ñi kon ñi nga gën a bëgg kamal man ko ñii samay xel la mun ma ñii bëgguñu la ma ni maa la bëgg eh, ma dugal sama yaay mu ma mu ni ma ah kon sa yaay nga di bëgg kon man en tout cas ah, su ma boobu garaaw waaye bàcc li sempara tubarkalla kenn du yow yow géer ñëpp ñëpp ñëpp dañ maa bàyyi ak yow te ñàkk ñu fayda nag ñàkkuñu fayda xam na li fi ñu jëm xam na ni man mii duma ànd ak waye waye waaye bàccal ni nga man taral te ñu bokk milieu bi bokk showbiz bi tayiwoo puusoo paasoo ku coow li bari riir bi bari kenn du la laaj kenn du la wër man mii la li wër te ku ma war a dégg daali ku ma war xam ni gar mi maa ngi eh gaay gu ci nekk waaye am nga ku la saf waaye su mu li bàcc lii boo see lay see mu jéer mujjee ee eh, xoolal bàcc ni seen parent garmi bi bete bete def du yaa ko waral ko yàkkal yaayu maam jaara bu baali kenn du mel ni e ñii toog ak ñi waaj nanu wiiw ñépp nee nanu ba nan boose ndax fii ee bul gisiti géer ba bëggu ko na la ana ceri loxo su ma doon proposé ci géer ba bëgg ko ne la géer nga bëgg nga bëgg eh, internet eh internet yéen a mën a siiwal yóbbu leen leen de yéen a mën a siiwal eh, maani bul gisati géer ba bëgg ko ne la géer nga bëgg nga waaye internet xam nga yéen a mën a xoolal billaay ragaluma loolu ak ma man dama koo ñeme te fi ma jëm fi eh! géer katam jëkkër katam loo amul katam eh géer gi la jàpp ba daanu woo boo geesoo nee ko yawa bàcc li yaa waaye ku muy metti matal sa bakkan waaye nag buri bàcc li séeri bal la gay coow li daa bari buy daal réegu coow li bëlbëli buri bàcc li daal réegu xam nga lu ma saf ci ñii du tontu du nu wax du nu waxit du nu wax xam nga lu koy waxe sëy ba sëy ba sëy ak bàmmeel noonu la nuy waxe waaye waaye du sa ti géer ba bëgg ko na la géer ga bëgg ga bëgg doomi nday njoogu tey jii waaye lii lu fi yàlla def baax na moo laaj ma lu sax yaa ma yëlëb ba ma set yaa ma defar ba ma baax la nu defe bopp bi daa diis subu lu bàcc yenn ko xam nga ni bu ma langee te si woo bu bii day diis man su wootee te dikkuloo fi bu bii day wuyaay yen ba ma yenoon dañ na wuyaay yen ba ma yenoon dañ na kii lu ko noon di bañe lu ko jeeg ci jeeg ci bañe waaye rafet juddu am yëf di sëq di maye yu gor la booleeg yu waliyu waaye yéen moo ko yomba way su fekki di nit na mu mel bëj bëj bëgg li baax liggéey ci moom ba di ko bañ ndey ma ko liggéey ca baayam ba ñeneen su wan sa daya yàlla ñu lay ñaan yal la jaate gi ole ole ole ñoo ñoo yàlla ñi yàlla bi yàlla buri ja wi wi ay séeréer Balla Gaye ball bëggul kenn nobul kenn yow lay seex ku mu neex ku mu naqari ku mu neex yow lay wooye wooye ku ma ko daal wuu pour eh. yàlla ñoo ngi lay ñaan ku ma ko daal e eh, Balla nee ku mu ko jox na mu ko ku ko noobit noobu ku ko bëgg it bëggu la ku ko seese moom seesewu la ku ko wëri moom wëriwu la ku ko xool moom xoolu la xam ku muy xool yaayu Serigne Saliou Borom Juri kooku lay xool yaayu Bamba yaayu Bamba kooku lay xool yaayu Mohamed yaayu Mohamed kooku lay xool e du mën na yónni xam nga li ma dee nee na ma bàyyi jën mboose la ay wax kay moo yónni la doomi ndeyu buuri doomi ndeyu jóobu doomi ndeyu sumbuulu nobuma kenn bëgguma kenn doxaanuma e kuma doxaan dama alay nax kii may ebe mooy yaayu kii laa ku man dara wooy ndeysaan masha Allah